mu daal di bon du ci wax comme avocat mbir maa ngi ci loxo yoon mais nangu na ni information bi am na donc mandat d'arrêt bi ñii ñi doon wax naan sénégalais yi ñoom ñoo ko porte plainte donc finalement mbir mu yàgg la digganteem ak borom borom këram euh, Babacar Touré moom leneen la waxoon euh, Binta mm-hmm. ñoom ñaar mm-hmm. coow li jeexagul kii jàpp na dafay acharné wu ci kawam depuis deux ans kii jàpp ne liggéeyam dafay def mm-hmm. d'investigateur la donc voilà finalement Ah, Ouzin man du ma ñëw ci du ma ñëw ci digganteem ak Babacar Touré. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que loolu ñaari sénégalais la. Mm-hmm. ñoo xamante ne ñoo am problème. na ko porter plainte yóbbu ko ci yoon bu fekkente ne dafa gis ne journaliste bi mu ngi acharné wu jëm ci kawam. na ko porter plainte yoon àtte leen du dëgg. ci fi may ñëw. mooy ci Gabriel Kane. démb ba mu defee publication wam bi. lan la ci wax. dafa ne bu fekkente ne défendre gi nga xamante ne mu ngi koy défendre jigéen ñi mhm. moo tax tey kaso moo nar a nekk pal palaasam mhm. récompense boobu noonu ñu ko jox mhm. moom fier na continuer di tourner di defendre ay jigéen kon démb Gabrielle kan ci ban manipulation la nekkoon non est manipulation la ko parce que moom c'est de la manipulation waxee mooy par exemple sénégalais yu bëri dañu profité ci information bi jël information bi tam ko waxee non daa am fu mu waxee sax. parce que fi mu waxee président naa la wax. yow yow mi yaa may may yow yaa may may. moom moo am kàddu. non c'est que li ma bëgg a wax. yaa may may ma bi ma nii. c'est grave. Abdou Nguer bokk ak yow plateau nag neexul. parce que yow. manipulation bu mu wax. daa ma déggoon di jàll après. comme yow da koy déglu ba pare nga daan. donc da nga ne temps bi jeex na. da nga ne temps bi jeex na. Allez-y allez-y ñëwal. maa ngi demal na dem. Ousseyn. suñu dégloontee mu neex hmm. xawma ma Gabriel Kane hmm. masuma toog ak moom sax émission hmm. te moom tamit boo ko laajoon danaan laan xaw ma bintalaay ñun li ñu fi tax a toog mooy décortiquer information jox ko askanuk Sénégal du dëgg démb Gabriel Kane moom moo def publication page Facebook wax ci mandat d'arrêt bi xam le ne bu fekkente ne lii ñu koy def li mu doon défendre jigéen la ak violence yi ñuy yëkkati di ko teg ci kaw jigéen moo tax ñu teg ko ko kon tey lii mooy fayam muy prison su fekkente ne dafa laajoon mu refaire ko da koy defaat. Mhm. Gabriel kan lii la wax. Mhm. yow tey nga toogaat fii daan ne manda d'arrêt bi. Mhm. li ko waral mooy ex jëkkëram ca France. moo koy topp ngir doomam ji nga xamante ne indi na ko ci Sénégal. kon publication bi Gabriel kan defoon démb. ci lan la wund. c'était de la manipulation. bëgg a jëmale wax foo xamante ne yow xam nga ne wax ji fii nga koy yóbbu mhm. foofu du palaasam mhm. ndax gouvernement bu bees dafa ñëw mhm. nga bëgg a jël say plainte teg ko ci seen ndodd bëgg ne dañaa acharné wu ci seen kaw victimiser wu sama waxi démb nag mooy sama waxi tey ma ne la Gabrielle Kane elle n'a qu'à aller répondre Mm-hmm. devant la justice mm-hmm. bu amee ay compte yu muy rendre mm-hmm. justice la koy rendre suñu paree jël information bi toogaat fii traité information bi dëggam déet rawatina nag tey ba nga xamante ne moom ndayu mbilli gi ci jëmmi boppam moo taxawaat daal di wax ne pour doomam la kon loolu fii privé am la moom ak ex mareem rawatina du fii ci diiwaanu Sénégal kii mu ngi koy wax sànq naan nañu tey ci information beeg Babacar Touré ak namu nangamee xam nga ci lan la ñu war a teey ñoom ñi nga xamante ne dafa am ci fenn fu ñu faroon gouvernement ñëw ñu bëgg a victimiser wu kuñ ci woo nga victimiser wu daal ne dañ maa parce que gouvernement Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko dañaa toog di acharné wu ci képp koo xamante ni da doon xeex di jàppale Adji Sarr ci élan bi Gabriel Kane ak ñi ko àndal sampal ko tànk bëgg jëm ci élan boobu nekkul ni loolu mooy information bi information bi mooy ca ñoom ñoo décerné benn mandat d'arrêt ci kaw Gabrielle Kane c'est une sénégalaise. Hmm. ñu décerné ab mandat d'arrêt ci kawam jëkkëram jëmu doon sëyal moo ko yóbbu ci yoon ngir wàllu doomam mais loolu ana gouvernement Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko luñ ci laale lan moo tax mais tuddul tuddul gouvernement parce que Gabrielle Kane démb démb publication dafa victimisé wax ne xeex gi doon xeex ci àq ak yelleefu jigéen mm-hmm. moo tax ñu jël li nga xamante ne nii moom moo di ay plainte teg ko ci kawam mais c'était pas rapport ak information bi nit ñi ni ñu ko jëlee orienté ko fi ñu ko orienté. loolu ay xalaat est nit ci réponse boobu la la la xalaatoo. maanaam nit ñi dañoo jël affaire bi mbir mi. loo xamante ni bon j'allais pas dire c'est assez personnel diggante lu privé nit ñi jël ko teg ko ci diggante li fi jotoon a xew yëpp. waaw man la man la est du ñooñu lay tontu en fait. Ouzin bu mm-hmm. fekkente ne dañ kaa teg ci loolu. Mm-hmm. moom mu génn répondre ci loolu kon moo leen moom kay ba mu génnee bay répondre daa waroon a wax ne lii sama problème la sama diggante ak sama ex jëkkër gouvernement bu fi nekk amul dara loo xamante ne war nañ ma kaa mën a toppee te toppee waguñ ma ci dara mhm. su boobaa wax ja day jeex de mhm. mais bëgg lu xóotal ay wax bëgg lu taqal gouvernement actuel moo tax mu génn ànd ak ñi nga xamante ne nee nañ njortu nañ ne dañ kaa plainte ndax lim doon jàppale aji saar moom mu xam ne plainte wuñ ko loolu liñ ko plainte moom mooy ex jëkkëram ak digganteem ak doomam kan moo war a yor garde enfant bi ci diggante jëkkër ji ak jabar ji mm-hmm. ci loolu ci lañ ko toppee il n'a sortir pour communiquer mm-hmm. sur ça là mm-hmm. léegi nag su waxee ci li nga xamante ne nii moom moo di élan boobu dafay édifier sénégalais yépp ki réeroon toog naan coowal Adji Sarr moo tax ñu pelente ko ku réeroon naan règlement de compte la digganteem ak Ousmane Sonko su boobaa moom mu daal di leeral mais tekk tekkaaral gi nga xam def na ko communiqué bi nga xamante ni ñëkk na ko génnee démb ci ay réseaux sociaux am par rapport ni mu waxee dafa xam le ni victimiser wu xam le ni dañ kaa jaay doole ndax combat yi nga xamante ne mu ngi ko doon amal en tant que activiste en tant que féministe boo xamante ne da doon jóg di xeex àq ak yelleefu jigéen mhm. Mhm. Euh, Khadija oui ma non xaaral Khadija man une minute rek laay jël bari non Xadija dama ko ñaan dama koy foqati. boo foqatee doo jël une minute da nga may ñaan ci njëkk rek <laughs> ma soo ma ñaanee ci njëkk doo wax rek soo ñaan ci njëkk ci njëkk. waaw ñaan njëkk. ñaanoon dem na de. bàyyil njëkk nga ñaan ci njëkk wala wax. xam nga Gabriel la lay tiit li kii di wax du victimiser wu de mandat d'arrêt la. Mhm. day ba ñiy jël ko delloo ko état français ñu dugal ko ci kaso bi. mais mais mais Gabriel français la non la sénégalais la double nationalité la waaw je naa ko bu baax mhm. double nationalité la am tey ñii mën nañ xëy ne ko comme euh, état France ko am nga nationalité français ñoo la soxla dañ lay delloo lu ci waay mën demee ñu dugal ko ci kaso bi moo yey yuuxu nag comme ministre de la justice day yori day vidéo Ousmane Sonko ku ñu woo na nga yuuxu teel a la yuuxu comme Ousmane Sonko joxe ndigal pour mu jàpp la loolu la bëgg a wax te war naa yuuxu dina gën a yuuxu nag te naa ko yuuxule bu mu yàgg nag bañ jël ko fii yóbbu ko ndax Massata xaw ma doomu Lamine Diack bi état français ñu ngi koy laaj ba ba léegi Sénégal téye nañu fii ci réew mi loolu rek laa bëgg a wax. Mhm. yow tu penses que loolu loolu bañ ñu extraire. Ah, moo yay yuuxu. comme Ousmane Diagne mooy yónnee vidéo yi Ousmane Sonko yuuxu na yuuxu de. ça fait mal maintenant. Mhm. moment yi fi doon jël photo jàmm yi mhm. doomu Sénégal lañ. ay doomu Sénégal ay wuyu lañ. ban <laughs> ak ay doomu réew di leen tëj. wuyu lañ de. wuyu joto jàkkaarloo di jaay doole aw askan. bu la neexee waaye moo tax sanction sanction 24 mars fataloon mars. moo leen moo leen ñuy déliré. mais nag li nga xamante ni mooy Gabriel Kane boobu duma ci sori parce que dafa nekk benn euh, problème personnel. ndax dafa dañu gisoon. que démb dañu wax loo xamante dama yaakaaroon ne ay plainte yoo xam ne ay personnes yu nekk Sénégal euh, ñoo ko plainte ay multiple plainte parce que loolu la jox. tey ñu dikkaat ñu xeyaat joxaat ñu beneen informe mu nekk ñaari information yu wérul mhm. donc juste ci ñi nga xamante ne bi mooy côté Gabriel Kane ndax moom bind na loo xamante ne bi ak li mu bind tey dafa nekk ñaari bokkul mhm. tey jii suñu xëyee joxe information suba ñu joxe benn information bu ñuy daal ca kaw journaliste la ñuy daal alors que moom ndeyu mbir ji moo joxe moo joxe ñaari yu bokkul mhm. donc euh, justement ci li nga xamante ne bi moo moo ko jëkkëram loolu moom la concerné ak waa France côté mook Babacar Touré tam mook Babacar Touré Babacar Touré ay ay ay mhm. di gis di su fekkee ne Gabriel dafa gis ne day asar na wu ci moom mhm. waa Gabriel li mu na sax mhm. nañ texte bi gis nañ li mu ci yàq donc loolu doy li mu doon li mu doon da day asar na wu ci moom moom tourné waat na ci moom bàccaat na ko mu saf sàpp ndax gis nañu texte bi donc li nga xamante ni dafa dafa ñeel digganteem ak waa France ak jëkkëram bi nga xamante ni dañuy xëccoo seen doom ci seen biir loolu Euh, su fekkee ne Gabriel dañ koy retourné ak loolu ñun ñoo koy wax mais loolu état bu Sénégal moom moom la concerné ak waa France na ko soxla ak Gabriel kan ma nga xam ne moom la ñu soxla. Mm-hmm. nekk na mbir moo xamante ne bii ci seen diggante la ñoom ay citoyen Sénégal wala citoyen France donc nañ ko lijjanti ci seen biir. Mm-hmm. te ñu xaw ñu may ñu tuuti apaisement ci côté. Mhm. coowal eh, dañ victimiser wu yeeg dañ may def neeg dañ maa bëgg a def nangam. man sama sama bëgg-bëgg tey man buñ bu doon dafa dafa nekk Gabriel bu ñu ko jëlee yóbbu ko France dañ koy tëyee mhm. man maa ngi naan état bu Sénégal ñu bañ ko wéewu ñu daj tëye ko fii ndax lu mu bon bon doomu sénégalais la mhm. sénégalais rek ci suñu bopp suñu biir la bokk donc su dee dañ ñu koy tëyee wala kaso mu nekk loo xamante ni day metti sim nañ ko tëyee fii Sénégal mooy li parce que eh, kat eh, jàppale sa doomu réew loolu maanaam bu ñu wëcc si bu ñu jël suñu ay doomu réew di ko jaay France di ko jaay tubaab bi bu ñu ko def nañu tëye suñu ay doomi réew protéger leen jox leen kaaraange gi war ci ñoom mm. suñu nekkee ci réew nag bu ñu defee lu ja war lu ñu war def wala ñu jàdd yoon ñu jël yëpp bu dul ci seen mm-hmm. ko jébbal tubaab bi mm-hmm. man loolu d'accord ma ci waay waay loolu d'accord au moins a bokk gis-gis ci gis-gis bokkuma ko moom dara ah, <laughs> mais nangu bu ñu bu ñu jël suñu doomu réew jébbal ko tubaab bi man loolu nangu ma bu ñu jël suñu benn doom réew du ko jébbal tubaab mm-hmm. bu fekkee suñu doomu réew sax dafa am ak yoon dafa am ak problème tubaab bi mhm. na jaral na jaral état bu Sénégal mu jëlal ko bépp matuwaay bu mat mu jëm ci wàllum avocat bi lépp ko ba mu génn ci problème mhm. yooyu mhm. ndax la euh, voilà mais mënuñu waxaat nag parce que gars yi ñoo ma message naan daal ñu xam nga techniciens yi xam nga bëgg kii wax ay cas ay coow tuuti léegi li ma la bëgg laaj Abdou Abdou a ma la bëgg li ma la bëgg laaj daal léegi wal wal fajiri wal fajiri wal fajiri ñu ngi gis euh, Tunkara lancé bon bëgg a lancer wala sinon lancer benn pétition. Ah. wala sax benn cagnotte sax laa mën a wax. Hmm. pour ñu euh, dimbali personnel Walfadjri bi ndax avance tabaski bi finalement duñ ci jot ndax impôts yi dal seen lox seen ndaw loolu est-ce que lu logique la maanaam ñu dimbali personnel Walfadjri. Ousseyn pour jeexare comme dañoo amoon retard treize heures jot na. waaw te man amoon naa programme moo xam treize heures pure la woon. Hmm. te comme retard moo amoon. Hmm. Euh, ci ci Walfadjri. sama ah. waxu démb mooy sama waxu tey. Mhm. man gëmuma ni dañoo tëj seeni compte mhm. damaa gëm ne dil lañ teg ak nguur gi fi ne. Mhm. parce que nguur gi fi ne am na site yu seen yu ciblé woon ba tëj leen coow leen ne kur. ñu ne xaaral ñu tëj suñu xarit yi tëj tëj lu leen. la ca suuf nag duñ ko leeral. bu ko defee suñ tëjee ci des ñu la waa tëj nañ seeni xarit. pour jéema a layal comme ni jomaaya xaram mi rek. fa laa wax de. xaram mi. mu mu bëgg a jënd cent soixante mille te réew mi yëpp amu fi. mu jaaxal ñëpp. bu la fi xel yëpp noonu laay def ci tëjug Walfadjri. yow nit taxaw di waxaale borom xar borom xar mu ne ko mu dem ba 160000. nga bëgg a jàpp ni waxaale boobu sax lusigul. borom xar mais mais mais Abdou boo xoolee kanamam xool kanamu jomaay rek xam ne kanam yu miinantee ngi. waaw mais yàgg na fa jënd mais mais mais si biir si biir non attends si biir euh, titrage lan la ñu wax jomaay dellu na après sept ans ou cinq ans dellu na ci ki mu doon faral xar. mais du normal la. que du waxtaanu suuf. munoo cee jàngee dañoo waxtaan ci suuf su ma ñëwee. xar mi président am na jotu. yow gis nga waxaale bu gaawee nii. Hmm.